plaisir et une fierté pour moi de vous retrouver, surtout pour communier à la veille de la célébration de la Journée internationale du droit de la femme. Vous le savez, la célébration de cette journée est marquée cette année par la tenue des premières assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes. Je voudrais pour cela féliciter votre ministre pour l'initiative et pour l'inclusion. J'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie de restitution des conclusions de ces assises pour rendre un hommage appuyé à la femme sénégalaise dont le rôle pour la cohésion sociale et la consolidation des valeurs qui fondent la nation sénégalaise ainsi que son développement n'est plus à démontrer. Nous avançons quand les femmes s'impliquent et cela a été le cas tout le temps. Femmes du Sénégal, femmes de mon pays, je voudrais dire que toutes les opportunités du pays sont à votre portée, car vous avez été au cœur de tous les combats. Le Sénégal a avancé parce que vous êtes là, vous les femmes, inlassables, et infatigables. Je sais, je sais ce que je dois à une mère. Et je sais ce que je dois à mon épouse, Mariam. Ce que je dois à toutes les femmes qui m'ont accompagné dans ma carrière politique. dont la profondeur et la sensibilité des idées ont été d'une grande inspiration. Je rends en cette fête de la femme un hommage à ce que vous faites pour le Sénégal et je m'engage à travailler davantage pour les femmes. cette cérémonie li ma wax foofu dafa am solo pour ma taxaw si nee naa leen fu senegal yegg tey jigéen ñi ñoo ko fa yóbbu bu Sénégal avancé dafa fekk jigéen ñi ñoo taxaw te loolu démb la ba historien yi wax nañ ko depuis talaatay ndeer yi jigéenu Sénégal mosuñ dalu ginnaaw moo tax ma ni man xam naa li jigéen def pour ñun nit ku ne mën nga sedd li sa yaay def ci yow waaye yokk naa si ne seede naa it fi ma sama soxna féete te loolu góor bu ne war na ko mën a wax yokk naa ci ne jigéen ñu nga xam ak ñoom mu naa seen taxawaay ak li ngeen def ci man ba ma nekk fii ma nekk tey kon jërë ngeen jëf Merci beaucoup. yaram daw na ni ko Aly Mansour di waxee yaram daw na waaye sama teewaay fii mooy won leen tey la ñuy gën taxaw ngir jàppale leen jàppale jigéenu Sénégal fortement symbolique pour toutes les nations éprises de paix et de progrès durable. Je renouvelle mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des femmes, avec une mention particulière aux femmes militantes, des causes nobles, dont l'engagement et le plaidoyer constitue de puissants stimulants dans le processus d'amélioration de la condition des femmes. Comme nous y invite le thème international de la journée cette année, pour un monde digital inclusif, l'innovation et la technologie pour l'égalité des sexes. Nous devons porter la réflexion et l'action sur les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle au processus d'autonomisation des femmes et de faire progresser nos sociétés. Cette exigence s'impose pour l'avènement d'une planète 50 cinquante et l'atteinte des objectifs de développement durable li ma bëgg a wax duma ko mën a wax ci français ndax li may yëg ci communion bi ma am ak yéen français mënul génne lool bëgg naa daal ci yéen kontaan naa ci yéen maa ngi leen di xamal ni. am na lu ñu def jërëjëf merci beaucoup man daal yàq ngeen sama discours dama koy tëjaat ma mu jeex su ma delloo suba conseil des ministres ma wax ak premier ministre wax ak docteur Fatou Diané ci li ñu nar ci programme bi ngeen ma jox mu jóge ci assise nationale nga xam ne fukki région yi ak ñeent yi ñu bañ fàtte diaspora bi lan la ñu war a def état bi pour que taxawaayu jigéen gën a jëm kanam ci Sénégal danañu gën a dooleel kuréel yi nga xam ni ñoom ñooy financé jigéen ñi ak kuréel yi formé jigéen ñi yooyu yëpp daañu leen dajale li ngeen wax itam ci quota yi ñu war a jox jigéen ñi ci lépp lu ñuy séddale danañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que nag jigéen ñi ñooy majorité ci biir réew mi kon jaadu na ñu jox seen wàll ba mu mat sëkk maa ngi gërëm madame la ministre liggéeyam rafet na vraiment maa ngi koy encouragé mu continuer ci nii boole ñëpp uuf ñëpp muy jigéenu politique di jigéen société civile di femme rurale rawatina les femmes rurales ma bëggoon leen beral loxo ndax ay jàmbaar lañu te seeni liggéey métti na lool kon incha allah maa ngi sant waa ONU Femmes bi nga xam ne ay partenaires lañu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous nag ci kanam jërëjëf.